oui je vous remercie euh, Je voudrais d'abord dire que c'est sur instruction de son Excellence, Monsieur le Président de la République Macky Sall, par le Premier ministre et sous sa coordination que toutes les dispositions ont été prises pour assurer la sécurité au niveau des différents points de vente. Effectivement, comme vous l'avez relevé, au niveau du point de vente donc d'Alifort, euh, le président des éleveurs sur place, M. Momodou Tala, a bien indiqué qu'ils sont très contents du dispositif qui est mis en place. Ici également, nous avons entendu le même contenu s'agissant euh, des difficultés que rencontraient auparavant les éleveurs. Et je dois dire également que sur l'étendue du territoire, toutes ce sont toutes ces dispositions qui ont été prises en rapport avec les gouverneurs, les préfets et les sous-préfets, assistés des différentes forces de sécurité. Voilà ce que nous avions reçu comme instruction euh, de la part de M. le Premier ministre, que nous nous sommes employés à exécuter. Et c'est à la grande satisfaction euh, des TFP mais également des populations. Je voudrais en profiter pour lancer un message à l'endroit de toutes les populations qui souhaiteraient venir s'approvisionner en moutons. On est à J-3 de la Tabaski, qu'elles peuvent en toute sécurité et de façon tranquille venir acheter leurs moutons sans que... Vous me permettrez de terminer sur un dernier point concernant le Daral de Rufusque où nous nous trouvons. Euh, vous avez entendu tout à l'heure, suivi euh, très certainement l'échange entre le Premier ministre et le président du DARAL sur la nature juridique du terrain. Instruction a été aussitôt donnée au préfet de faire le point sur la nature administrative du terrain, de nous faire euh, par rapport la remontée afin que nous soumettions au Premier ministre des propositions y afférentes. Premier ministre Minga, nga ni Jotli, euh, ndigal son excellence monsieur le président de la république Macky Sall ndigal li moo doon fexe ba fépp fu ñuy xar ci Sénégal waaye fep fo xamanteni ni soxla yo xamni askan bi amna ko fa ci waajtaayu tabaski bi ñu ba karangé mat fa seuk lolu nak euh, sant nañ ci ndax ci daral Pikine Dalifort biñ fa yeggee ci Seras président ou teefanke yi moo ko waxal boppam muy Mamadou Talla euh, ki ko feelu ci wax ji euh, représentant ou malien yi suñu malien yi nga xam chaque année dañuy indi ay xar yu bari ci biir leeral nañ ni mbiru karangé doyna seuk ci fep fo xamanteni ñom gis nañ ni ñu fay jaayee ay xar lool nak moy ndigal li ñu jotoon ci premier ministre président de la république joxoon koko mu jaar ci mom ba wacc ci ñun ñu yeggale ko ci gouverneur yi nek ci Sénégal yépp waaye tamit ci police ak ci gendarmerie ba tey tax na foo dem ci dëkk bi ci ak ci réew mi di nga gis ni police ak gendarmerie jël nañ seen matuwaay yu mat sëkk ngir njaboot borom njaboot bu jug bëgg a dem uti xar wala nga bëgg a dem ci marché bu mu munti doon nga mën a def sa achat ni nga ko bëggee te dara du la ci fekk ci fitna. gis nañ te représentant malien bi wax na ko sànq euh, kii suñu mbokk malien yi wax na ni bu njëkkoon. bo ñëwé ci daral bi da ngay japp ci bejjenu xar bi ko xamni samba boy la di kuy euh, euh, addu kalpé japp ci tanku xar bi waye légui lolu amatul fimné ñom waxal nañ ko seen bop tamit ñi way def katu ñaawté fi ñom ci seen bop ño am titangé ño am ragal ndax kenn gisulen ñu jégué daral yi lolu nak dañ ciy sante yalla bu baax te di wax ni ci suñu ay ndigalu kilifa di président de la république son excellence Macky Sall ak premier ministre Amadou Ba ci lañ doxalé lool yépp waaye ci jappandalu gouverneur yi préfet yi sous préfet yi ak ñi nga xamni ñoy police ak gendarmerie damay danel sama kaddu ci fiñu nek ni muy euh, daralu lu gis ngeen légui ñakul fekkee ngeen waxtaan wi euh, ki président wu daral bi dafa am yité bu am solo bu mu jotali premier ministre ci. fii ñu nekk muy daral bi di terrain bi dañu bëggoon nu leen ko état yéwénalee bañ mën fee woyal seen liggéey premier ministre ci saa si mu dal di may jox ndigal ñu woo préfet bi ni ko nañu defal rapport ci terrain bi suñ ci noppee dinañ ko defal ay proposition mu yeggale ko président de la république Macky son excellence Macky Sall ngir ñu xool lan moo ci gën a mën a am ci euh, lu ñu mën a yéwénal waaye tamit lu ñu mën a yombalal ci suñu mbokku tenfanke yi nekk fii ñu leen di leen gërëm